kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk nu ñu koy defee tey nag ñu ngeen koy gisee ñu ngi fii ci li nga xamante ni moo di yoof kan moo wootee ñi nga xamante ni boo leen gisee tubaarkàlla macha allah loo njëkk a seen mooy seen bëñ yu weex boo xoolee seen i kanam gis mu fees dell ak leer waaye nag li ñuy solee seen yére bu weex noonu la seen xool yu weexee muy ñan laayeen yi laay maxtaar laay sëy nekk laay isaa laay tey nag dinaa dugg si kër yëpp xool ni ñu ko ni ñuy toggee ni nga xamante ni xale yu jigéen noonu la ko préparé xalil sama caméraman bu bi ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk ñun a saare seen mbégte mooy suñu yite ba tax li ngeen di bëgg rek la ñuy def damay daal di yéeg rek xalil yéegal rek ñu yéeg ma xool meer yi boo xam nu ñu toggee xool boo xam togg meer yi salaamaaleykum maam nuyu naa la yaa ngi ci jàmm añ nga ba suur lay maxtaar waay laay sëy nekk laay isaa tey koo gis ku nekk laay lay wuyoo ko gis ku ne laay lay wuyo nan la laay maxtaar laay sëy neeg laay isaa laay ñuy toog fuñ ne salaamaaleykum na ngeen def ñiino njiin mbay laay maam Abdoulaye Thiaw laay salaamaaleykum eh, tataay bul loolu yaa booy salaamaaleykum yéen ñuy toogu si waañ bi de laa soxla yéen ñi togg si waañ bi nan laay jaaree nii. oh sama xel yaa sama xel sama xel bi dem na ci fayeen yi fiñ ne <laughs> sama xel yi dem na ci fayeen yi fiñ ne yaa booy nuyu naa la. fay naa la. yaa ci jaam maa ngi ci jàmm bu baax. bi nan la. Aminta Jong. maman Aminta tey dañu bëggoon xam seen programme bi naka la deme programme mu appel rek. appel bàyyi laay ni aaju boo daay laay suñu maam yi wuusi rek ñu wuusi loolu la. moo ne amana ñëpp ñëw muy démb ñuuloon démb ñuulaa tey yonent bi yàlla bi loolu la ñu koy saa yu ñëwee ñu def suñu bernde di ko berndeel gan ñi ñu lekk ba suur naal maan gis nga taluñu salu taluñu dara ñoo ngi ci togg ak yekk rek lañuy def. ban heure ngeen di tàmbale li nga xam ne moo di seen liggéey bi. liggéey bi maanaam dañuy tàmbali dina am ñetti fan bu ñu nee suba la ñuy raxas suñuy ginaar bu ñu suba lañu ñu muusal suñuy ganaar di saar suñu ginaar ba fajar ba fi mu ne nii tëddaguñ ci laal noonu rek lañ koy doxale ba ngoon ba guddi di berndeel gan ñi rek nan lekk ba suur naan ba maan loolu rek lañ leen di defal waaw. seen gan yi naka ngeen di dundee ak seen gan suñu gan yi xanaa ak leen rek. asalaamaaleykum naa la. fay naa la. ngi ci jàmm. sant bu baax. naan la. Binta Ba. waaw Binta dañu bëggoon xam rek programme bi naka la demee. programme bi moom xanaa nii rek ngeen ko gis moom neex rek macha allah. di ñaar xéewal gay gën a yokk rek ñu fekk ñu fi ak mboolem jullit ñu fekkee ko ca tal ko rek gis ngeen ko kay ni mu demee moom yéen a si teg seen bët. liggéey bi kañ ban ngeen ko commencé. liggéey bi ah liggéey bi moom daanaka bi weer bi teroo ba tey liggéey bi ñu ngi si. waaw ndax bañ rek gan yi gan yi ku fi ñëw rek bëgg ku fi ñëw rek kontaan booba tey ñu ngi ci moom ma weer bi teroo ba tey ñu ngi fi kenn toogul kenn taxawul waaw. naka ngeen di gérer ak gan yi. ah gérer rek gis nga yow kay yaa ko gisal sa bopp kenn du xiif kenn mar rek kenn du xiif kenn du mar kenn du génn di jënd gerte jaaf. loolu de kër kan la ban kilifa. mooy kër Baye Seydina Issa Laay. merci beaucoup. baayu ñëpp kii mooy yaayu ñëpp kii moom mooy yaayu ñëpp mooy aawa jiitu ci kër gi fàqul kër gi mu dib doom ku ñëw ci nga gis nga sama kalaas gi maa ngi d'accord merci beaucoup Yaago. waaw waaw yéen yéenay fan nag man benn rajo ak yéen ah. baax na yal la. amiin waay. amiin. xale naa la soxna si. maa ngi lay fay. yaa ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. nii nga xëyee nooy nar a gontee a ah, xanaa defar ba mu baax rek waaw fa yéene defar ba mu baax daal ci woote Seydina Limaamu bi. sànq seen nañ la sànq ba léegi yaa ngi jaabante di toppatoo gan yi. waaw Seydina moo ko jar rek waaw. organisation bi. xanaa préparé wu rek defar ba mu baax teral gan yaatal néeg yi comme moo waxoon yaatal leen sàkkati gan yee ngi ñoom waaw ñu wàcc lal yi jox néeg jox gan rek ñu kii teral leen ba ñu tedd rek benn yeeg lépp ñu fi. d'accord merci beaucoup. ok sama série la. tey boo gisee nit ñëpp ñëw teew dañoo kontaan xool dafa xool dafa féex tey ba xamuñu lu ñuy wax lépp ngir ku tedd ki. waaw ndax moo ne woon nañ wuy ci wooteem bii moo ne woon yaa ma masalal insi wal jinni inni rasulullahi aleykum waaw. woo tax tey sama jéeg bi damaa bëgg ci moom kontaan ci moom trop. yàlla na yàlla defar ñëpp nekk ci jàmm ñëpp nekk ci sutura yéen tamit yàlla teral leen ba ngeen yëg ko xol sedd na trop jërë ngeen jëf taar salaamaaleykum soxna si nuyu naa la maa ngi fi maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm waaw tur bi nan la Fatou Badiane Badiane daa mel ni yaa ngi añ de wala maa ngi añ de moom waaw gis nga lii gis nga lii <laughs> naka nga gisee teraanga yi fii daa mel ni laa yéen neex neex na trop trop gudd fan ak wér gi yaram moo leen di ñaanal à chaque appel nii la ak xéewal gu baawaan nag sama doom day bi moo tax ma ñëw fi ban bokkee classe ba tey dafa yàgg teewul ñu ngi nemmeeku sëy doo ñu xaajale waaye dafa baax yaatu fii moom mooy ëttu Seydina Limaamu Laay danoo yaatu baax mën a joxe lekk ñu ngi leen di ñaanal baax at mu ne ñu koy def di tere Seydina Limaamu ak xéewal gi yokk yokk yokk ban yëg ko ci kàttanal yàlla loolu laa leen di ñaanal. naka nga gisee seen taxawaay ci gan yi. taxawaay bi moom wax dëgg yàlla rafet na rafet na trop nice na moom contentement rek. ndax ku ñëw ku ñëw fi na ne nii yàpp kilo yàpp dafa cher kilo yàpp 5000 waaye boo ñëwee fii doo ko yëg ku buunoon yàpp boo ñëwee fii da nga lekk yàpp ba sonn ah fii mooy ëttu Seydina Limaamu neex na trop dëgg bu ñu jógee yaram man caaroy caaroy laa jóge waaw waaw waaw de <laughs> merci waaw. Tanta looy saaf yow xaaral suñ bi pare. waaw salaamaaleykum. ça va soxna si def ci jaam sant yàlla bu baax. nan la Ndeye Aida. fataay ngay defar. waaw fataay lañ jaay la wala. pour gan yi la rek. Hmm. loo gisee pour appel bi la. lépp gan yee ko war a rek. bu ñu dégusté ko après rek daal di si ngoon gi. mooy jus baa ngi nii salade de fruits baa ngi fi caakiri baa ngi fi xam ngoon ngoom bu gan yi toogee ba ci kanam rek. bu añ bi reesee dañuy xiifaat. comme gan yaa ngi ci kaw ci kaw di noppaliku fataaya yaa ngi feek ñëpp ñi ngi si daal. d'accord naka ngeen gérer seen organisation bi. ah organisation bi moom depuis déwén xam nga ça fait deux ans amul boobu ba tey ñu ngi koy préparer pour année bi comme yàlla def na mu am ñu mën liñ ci mën rek ñu jàpp ko si incha allah waaw organiser góor ñu jàpp si organisation service bi jigéen ñi nekk si waañ bi waaw. merci beaucoup ok merci. fan la. ci loo nekk. sant yàlla bu wér yaa ngi ci jàmm. si laa nekk nii da préparé gan yi nga xamante ni ñoo war a ñëw ngoon gi moo tax ñu nekk si nii instant bi nii. te parce que euh, vu que ne vendredi bi la tombeel euh, nit yi liggéey ak yooyu noonu moo tax ñuy sóoraale ba heure bi ñu nekk ci liggéey bi daal. ñu daal ñëpp lañuy ñuy sóoraale ñëw guddee kuy ñëw bëccëg ak ñëpp ku ñëw daal fekk fi xéwal yi macha allah. waaw kay naka organisation ak gérer gan mu xaw a métti. métti na métti na mais sant yàlla dañuy sant yàlla ndax euh, doon nañ ko waaj xawoon na metti ndax euh, li fi jóge ñëpp xam ko mais sant yàlla. dinañ ko gérer comme niñ ko war a gérer te euh, duñ ci am benn lenn luñu luñ ciy sonné daal waaw dañuy sant yàlla alhamdulilah. maa ngi sant jërëjëf alhamdulilah. ñu gënoon di def béykat yi bu ko bu ko ci kii bi ñu jël ñu weex ñi. waaye taxawal ni ma jël maire bi taxawal ni taxawal. waaw voilà may ma xale non taxawal tata nu nga taxaw. tata nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi ci jàmm. jàmm rek. tur bi nan la. man Maguette laa tudd madame Tall Maguette Thioub. Mhm. yéen sa xarit yi yéen a doon baskettandoo. waaw c'est les anciennes basketteuses des Niayes de Pikine. ñoo doon baskettandoo en 78. boobu école primaire la ñuy doon jàng. di dem Amadou Bari boobu la ñu ko euh, euh, euh, Abdou Diouf inauguré en 77. ñun ñoo fa njëkk a basket ñooy promotion bi njëkk a basket stade Amadou Bari. ñun ñii la muy ñii toog ci lal bi ñii ñëpp. on était presque quinze à à seize personnes ñi ci des dañoo dispersé wu ñii dem nañu Canada ñii dem nañu Allemagne moo tax ñi fa des nii neuf la ñu xam moo de huit ñoo ñëw nii ñoom laay invité chaque année ñu ñëw ci appel bi samay xarit lañ de longue date vraiment. d'accord lan nga yëg tey nga xewle maanaam appel bi sax du ma ne nga xewle mais waa Yoff le tey nga invité li nga xam ne moo di say xarit ñu ñëw wuyu si la si bes bi. li ma yëg de mooy mbégte rek ak bànneex wax dëgg yàlla ndax man mii je suis de Pikine sëy si Cambérène en 86 ça fait presque 34 ans xaw ma 35 ans ba tey jii nag maa ngi ñoom tàggoowuñu chaque année dama leen di invité ñu ñëw appel deux ans yi rek à cause du Covid la ñu ñëwul mu reprendre tey le 2022 ñoom ñëpp defaat délégation comme ni ñu ko daan defee auparavant ñëw nii tey jii may kontaan lool di kontaan ci diine layen ji ma bokk sama jëkkër Seydina Tall la tudd moo moo ma dugal ci diina ji ndax man sama papa murit la mais léegi dem naa ba jeex ci laayeen yi xanaa neex <laughs> waaw. xeetu laayeen bi neex na xaaral ma jël ma waraat sama yeneen yaay wax laaj leen ba xam ñoom laaj bi. Eh, eh, yaa booy nuyu naa la. Euh, fay naa la sama doom. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah. tey lan moo waral sa teewaay fii ci Yoff. Ah, ñun comme comme ni mu ko Maguette bu waxee rek mooy sunu présidente. ñun ñooy ancienne basketteuse des Niayes de Pikine waaw depuis boobu mu ñëwee fii ba tey chaque année ñun dañuy ñëw di ko fi féete. ñun am na ci ay taalibe seex am na ci ay murit comme man taalibe seex la waaw waaye dañuy ñëw ndax lépp yàlla la ak yonent bi. waaw dañuy ñëw chaque année mu invité ñu ñëw fii man bu may ñëw sama kii jaar nañ ci jumaa ji ziyaara julli fa soog a egsi fii waaw. naka ngeen di seen taxawaay yenn saay si gan yi. ah macha allah xam nga rek gan yi moom dañuy ñëw. waaw ku ñëw nag ak foo dugg rek ñu dalal la ñun nag chaque année buñ fi ñëwee wax dëgg yàlla dañuy dalal yaatal ñu bu julli jotee ñu la sajaada yi ñun ñëpp ñu dem julli waaw kuy ziare nga dem ziare bu subaa ñu xëy dem yoon noonu lañ koy. ngeen di bi. ah macha allah ah, sant yàlla ak yonent bi rek ndax boo demee Tiwaawan dem Touba loolu ngay fekk fii te xam nga ñun diine ji moo ñu sonal waaw loolu rek la waaw merci jaajëf.

ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg teewe ñëw ziare si nag suñu maam ñëw nag fekk si suñu doomu ndey ji di Maguette Thioub di soxna si Seydina Tall chaque année mu ñuy invité ñuy ñëw ñoo ko koy ñaanal lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko waaw ndax fii ay nit démbam rek ñoo fi toog waaw kon yàlla nañ ko yàgg teewe fekke ko ak mboolu mu jullit ñu yàgg ñëw ñun ñëpp ñu yàgg fee daje kenn bañ a manqué barke Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def kontaan nañ bu baax. waaw waaw. nuyu naa la sax dama. fay naa la bébé fay naa maa ngi jàmm. maa si jàmm baax. bi nan la. awa ña Thiam. lan nga ñu mën a wax ci tey woote maam li maamu laay. xanaa kontaan ci bëgg rek. sama kii xam ne sama sama gàttibu. jëkkër ma sama jëkkër bokk sama jëkkër ñu bokk ndey baay muy ku baax lool nag ku bëgg bëgg li laay lool. ñu jàppale ko sos ñu yox ñu ànd ak moom jàppale ko ci la taral surtout mu taral ñu kontaan moom dafa baax jàmm lay am ndax macha allah bëgg na waa Pikine yi bëgg na àndandoom na ay maasam bëgg daw càmm ñam macha allah ko ñaan ko fana wéen ko bu sa dërëm jëkkëram baax soo ñëw mu yaatal la ganal la dëkkal dëkkoo la yàlla nañu yàlla jàppale nga ñaanal bis kontaan macha allah kontaan nañu kontaan nañu loolu macha allah yaa ngi lay fay sama bébé jaam sant yàlla bu nan la Ramatulaay Arama nan ngay dundee tey bésu li nga xamante ni moo di suñu maam maam li maam bis bi nag tey moom ku waxul ne kontaan naa xam nañ ne ñëpp kontaan nañu ndax lii dañ ko namoon te ko bi dafa am lu mu fi def woon ñu wëlbal ko na sant yàlla bu baax na di julli ci sangu-sang yi Seydina Mohamed di ñaanal suñuy waajur tey ñu ñëw Cambérène fii yàgg fee ñëw di fekk suñu xarit Maguette bu madame Tall ñu koy wax Maga Maguette bu Tall dégg yàlla dogal ñu ñëw tey ci feet gi muy suñu xarit xamuñu ban at nag la ñu ànd dañoo judd rek di ànd ba tey mu ñëw sëy si Cambérène ñu ñëw di ko fi fekk mu ñuy fekk fa ñu ne yàlla rafetal lépp tey ba mu ñëw ñu koy ñaanal yàlla bis bi lu mu ci ñàkk ak li ci jëkkëram ñàkk yàlla na ko yomb yàlla na ko yàlla wutale waat leneen lu ko gën lu gën li mu ñàkk ci bis bi di wax ne kontaan nañu suñu xol seen na bu ñëwee daf ñuy teg ci kaw lu ñu bëgg la ñuy def lu ñu bëgg la ñuy wax lu ñu limité ci dara màggat baax la jëkkëram baax na suñu ànd bi nag ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla saxal ndax ànd bi daal macha allah laf cet yooyu ma di la ñaanal fanu guddee seen télé bi yàlla na ko yàlla def muy télé bu mag a mag a mag ci barke Nabil Moustapha ci barke bis bi. c'est bon. yaa booy nuyu naa la. fay naa la. ci jàmm. maa ngi sant yàlla ak bàyyi laay alayhi la. Ndeye mën a wax tey si appel lu bàyyi laay. xanaa kontaan judd fa ma war a juddee màgg fa ma war a màgge waaye damaa gëm naa Limaamu alayhi salaatu wasalaam moom la woon démb moom la woon tey Baay Laay moo naa suñu riw dar fii ci Yoof naar ba xeesoon moo ñuul doom bu ku ma ndoy ak alsaan laaj nga ma ku ma sawar ku ma bëgg sama xol ak njabootam waaw Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moo ndu aji boo daay laay yaa man saral jinni inni rasulullah ilaykum mu ne moom mooy Seydina naa te man gëm naa ne Baye Laay mooy Rasulullah alayhi salaatu wasalaam may sant nag du wax képp koo xam ne ngay julit bàyyi ma Tidiane bàyyi ma baa bàyyi ma Xaadir bàyyi ma askan bi ba ca chrétien yi bàyyi ma leen ndax Serigne Abdoulaye sama sang boobu Alassane doomu Seydina Issa ju baax jooju dafa def ñëpp tarixa bu ne na la hymne tarixa bu nekk wayal na la yàlla nañ ko yàlla fayal Serigne Abdoulaye yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ yàlla fayal Serigne Abdoulaye tey ñu gis ne boo fi duggee fi nga xamante ni moo du yoof ñëpp benn kàddu gi la ñuy wuyoo muy laay laay lan moo waral loolu. xam nga lu waral loolu maam Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam xamul waaso kii géwél la kii tëgg la kii joolaa kii njaago yow boo dee fu ñu lay yóbbu du jàmmalaay ku ne da ngay ñaan boo demee yàlla na yeex àjjana fi daw si ngay dem allahu akbar lay maxtaar laay lay ñëpp laay la ñun xamuñu kii kii la ñun ku ñëw ñu ne la ndax dañ doon bañ te jamono xëy pëcc xoto nañ toll guddi ñu toll moo ndax bàyyi laay lii li gisoon moo tax mun na ñëpp nangu yoo laay góor jigéen ñi ne mag ndaw nañ leen sikkal kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la Seydina Limaan waxoon góor góor gu mu gis ah mooy bàyyi laay. lan nga tey appel bi ñaari at a ngi nii amul ren mu am ban yëg-yëg nga si. maa fi dama kontaan xam nga tax ma kontaan dama toog deux ans corona bi kor ba pieyi bàyyi laay bi ñu bëri ñëwuñu fi man gaa man fi laay jullee bu ne altine damay siyaari ñëw fii damay déparé ndingala su ma jigee ndingala xabru Seyna issa su ma jullee fajar ma dem xuntama ca Baye Abo mu sëriñ Ablaye Baye Abo mi ñu tuddee Baye Ablaye Thiaw Baye Abo mu paparaan moom xam ne moo toogal maam ca xuntama su ma siyaare xuntama ba deux heures ma ñëw nag jàmm laay jàmm laay ju màgg jooju nga xam ñëpp ko bëgg fa laay toog gili fa tis ba tàkkusaan timis ba géewee ma ñëw égale Seyna Issa ñibbi sama kër Tiwaawoon pël dama kontaan xam nga dama kontaan mooy dama bég xam damay gis sama mbokk yi ma daan gisul woon ñi ma gëj a gis ndax corona waa Gambie samay xarit ñëw nañu waa waalo yi ñu ngi fi dëkk bi yëpp xoolal sama benn xarit Burkina Faso at mu nekk danaan ñëw mu ngi nii soog a ñëw egsi ci démb ci guddi jógee Burkina xam nga loolu dafa sedd ci xol ñu ñaan yàlla ci yërmandeem ak suturaam si yaatu soosu yàlla na yàgg yàlla dañ ko dund ay téeméeri téeméeri at suñuy doom ak suñuy rek yàlla dañ ko dund ay téeméeri at ba kër bàyyi laay dox ne kaay leen dem illa yi na loolu laay ñaan yàlla waaw bi ki topp na dafa am lu ma bëgg a wax da ngeen dugg kër goo xam kër gi borom kër gi jur borom kër gi mu yaa Mantou Sarr yàlla na yokku leeram Mantou Sarr yàlla na ko yàlla yërëm mu jur doom joo xam ni Issa rakk lañ ko Seyna Issa ko tuddee Issa Diop laay yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla yokku yërmande ci ndeyam yokku suturaam seen bopp waaye seen barke baay yàlla na dal seen kaw ndax seen baay El Hadj Ousmane Diop Samba laay Samba laay baayam Samba laay ci saabu Seydina Limaamu la bokkoon dafa daan wax ay man laay bis bu ma génnee àdduna ku may sikkar Seydina Limaam ne ko di nga sikkar jug sikkar sa bopp dugg ci biir suuf kooku mooy seen maam moo jur seen baay. waaye bàyyi laay nag amul maas na si kontaan naa de laa yéen si kat waaye li xaar ma ko nag tedd nga tedd nga tedd nga tedd nga bàyyi laay tedd nga mamadooy rasoolu laay bàyyi laay ay yaaram be laay laa dama dama kontaan dama kontaan ma fille chérie merci beaucoup taa nuyu naa la maa ngi lay fay sama doom maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm alminan la yaama Diop yaama tey ñu ñëw fii sa kër fekk si la fii si woote ki nga xamante ni mooy maam Limaamu Laay bëggoon xam organisation bi naka la demee organisation baa ngi nii kontaan rek namoon ko ay ati at ñuy wër appel gisuñu appel yàlla suturaal ñu corona bi dem ci jàmm ak salaam ñu ngi ñaan yàlla di ko teewe déwén yu bari mu ànd ak sutura corona dem ba faw naka ngeen di gérer liggéey bi ak gan yi. ah ñun kontaan rek ñun lu ñu sonn doyul na gan yi ñëw xeewal yi yokku Mame Baye woote. liggéey bi bar heure ngeen ko tàmbali. ñetti ñeenti fan a ngi ni ñuy liggéey. ñetti fan nelawuñu. waaye nag sant yàlla la yal nañu yàlla may tal ak fekkee ñu koy teewe déwén yu baree baree bare kontaan nañu ci yéen. waakay waa kay merci beaucoup soxna si. asalaamaaleykum papa nuyu naa la. maa ngi lay fay. ci jàmm. ci jàmm rek. nan la. Adama Diop. Adama tey lan nga ñëw mën a wax ci woote bi nga xamante ni moo di Seydina Limaamu Laay. lan laa ci mën a wax. xanaa lu rafet rek ndax euh, dañ koy def chaque année. donc euh, ñaari at yi defuñu ko ndax Covid bi euh, ren nag ñu def ko kontaan ci ba parce que yàkkamti woon nañ ko comme ñëpp comme communauté yëpp presque. donc euh, yàkkamti woon nañ ko ñu ngi koy ñu ngi koy commencé si bisimilah rahmaani rahim ñaan ko yàlla jeexal ko ci alhamdulilah rabbil alamin tey nag tuuru Cambérène la suba bu suñu borom Yoff la ak yàlla rek egsi ci jàmm. te di ko def ay ati ati at waaw te lan nga ñu mën a wax ci ki nga xamante ni moo di suñu maam Seydina Limaamu eh, maam Seydina Limaamu li ma ci mën wax mooy gis nga man mii ngay waxal suma maam Samba Laay Jóob ci moom la toppoon moo doon bëkk néegam ci bëkk néegam yi la bokk bokk bi ñuy delloo géej bi muy delloo géej gi ginnaaw suma maam yii la joxoon ba yetu salaan bi woo ko ñetti yoon mu ne ko laay mu ne ko jëlal nga samp ko mu samp ko gi di dellu ginnaaw donc xam nga fii ñu nekk nii suñu kër la bon mais euh, liñ ci mën wax mooy ñun bés bu mel nii ñun Layeen yi communauté Layeen dañuy dañ koy yàkkamti ndax euh, ci la ñuy gis suñu mbokk yëpp parce que jot amul léegi ci lañu gis suñu mbokk yëpp ñëpp ñëw ñu ñu ñu ñu def jëfandoo ko ak ñoom mais liñ ciy gën a jàpp mooy Euh, conseil yi ñuy suñu marabu yi di jox parce que ren ren dafa am ñaari thèmes yu ñu génnee muy euh, muy euh, extrémisme ak terrorisme parce que wax na ci loo xam ni lu am solo maanaam xale yi dañ leen war a yar di di def di def si ñoom ay vertu ay qualité yoo xam ni dafay tax ba lii li ñuy xal li ñu doon xalaat ci ñaaw yëpp du ñu dal. dem na ci ba wax ni buñ bu ñu deful loolu nag yar suñu doom yi lu metti di mën nañu dal parce que xale yi bu ñu amul bu ñu amul exemple bu ñu amul si ku ñu topp nit mën na leen jëlee fële dévier leen te e, e, dafay yomb donc yu mel noonu ak tout ce qui se passe dans monde là mën nañ leen jël dévier leen def leen ay terroriste ak yu demee noonu waaw donc loolu lañu gën a jàpp ci ci ci ci ren ci ci ci ci waxtaanu marabu bi donc li ci def mooy eggali euh, appel bi ba noppi nag euh, terminé ko si jàmm. merci beaucoup. ñoo ko bokk merci. kilifa gi nuyu naa la. delloo ziar. maa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax. bi naan la. Ousseynou Laye. Laye. Ousseynou Laye tey ban yëg-yëg nga am appel bi comme ñaari at a ngi ni amul ren jii mu am naka nga koy yëg. mbégte kese mbégte parce que namoon nañ lii quoi loolu lañ yëg quoi mbégte di ñaan yàlla yàlla li fi mbas bi yàlla ko fi yàlla jëlee guerre bi ñu dégg Ukraine yàlla na fa yam yàlla moom jëkk si kii bi yàlla yàlla protéger dëkku jullit yëpp si barka Baay Laay. naka dundee organisation bi ak gan yeeg neex na neex na xam na loo moom toog deux ans defoo ko moom bu jege see moom xam nga da nga def ba def loo mënul moo tax tey gis nga tey lépp jaar na yoon macha allah di ñaan yàlla yàlla fekkee ñu ko ay déwéni déwéni déwén si barka Baay Laay Seydi gis ne tamit laayeen yi benn baat rek la ñuy wuyoo koo ci koo woo benn baat boobu la lay wuyoo muy laay maxtaar lan moo waral loolu ak sabab boobu fan la jóge pour xeex problème de caste rek diw géwël la diw géer la diw lii la diw lee la ñun ñëpp ay kii lañ innamal mu'minuuna ixwa ñun ñëpp ay mbokk lañ bu ñu booloo ñu ñëpp sant laay doo doo ñëw kër géwël di ñaan ñu la noo yow génn nga duñ la may géwël yooyu la bàyyi laay teel xeex moo tax amul fii quoi fii amul fii ñëpp laay la ñuy tukulóor beeg manjaak beeg ñëpp laay la ñuy wuyoo moo tax gis nga Cambérène mi ngi nii c'est la happiness c'est le bégg quoi mhm. waaw maaleykum salaam soxna si na ngeen def ci jàmm sant alhamdulilah la Issa Laye Diop tey lan nga ñu mën a wax si woote bi nga xamante ne mooy suñu maam Seydina Limaamu Laay waaw woote bi nag comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp soote Seydina Limaamu Laay al Mahdi Euh, woote la boo xam ne chaque ba nu ko fekkee ba tey mën ba tey ñu ngi ciy teewee ci def suñu doole ci def suñu xam-xam woote moom noonu la tëddee ci woote bi nag am na nu ñuy accompagne am na société bi wax Itra Place tout yàlla def man sax maa ngi directeur général adjoint bi foofu mais du loolu kese mais dafa am ay line yu fay yëngu di fa daan seen doole loolu nag société bi nag am reconnaissance ci ñoom moo tax chaque appel depuis vingt ans mu ngi leen di accompagner moom moo tax boo xoolee da ngay di gis euh, ci waañ bi ak ci jàmmalaay yëpp ay ñuy solli sot euh, ultra place ñooñu moom ñoo ñuy accompagner fii ci kër gi parce que c'est à travers euh, la maison Sambalaye kër Sambalaye. Mmh. Mmh. ngeen di organisation bi ak gandi ben organisation yi ci sant yàlla bu baax a baax. parce que tout au début c'était pas facile mais yàlla ak bàyyi la ak seet jàppale nañu ba lépp daf yomb moom daal yombalal nañu lépp. bu nu xalaatee ni bu mu mën a mësaan am il y a à peu près vingt ans plus de vingt ans boobu sunu waajur bu jigéen mi ngi doon dund moom moo ko tàmbale woon ak benn mbana bu ndaw gan yi jóge woon Dakar ñoo fii di añ si parce que ñun ñu mel ni man ak euh, sumay euh, famille bi yëpp Dakar lañ jógee bien vrai que moom Cambérène la coxaan cosaanoo mais ñun laay lañ ñu féete euh, Dakar dañ daan am ay gan nag bu nu defee appel bi Cambérène suba gi ba yoor yoor bi jeex suma yaay soxna soos dafa daan woo ne ñoo la ñu añ si fii mu démarré ci benn mbana bu ndaw ba tey yàlla baax na yàlla mi ngi sant yàlla bu baax ñi ngi am euh, ñi ngi def daal ni mbooloo mbéeg ñu wuyu daal lépp nag ci doole yàlla suñu borom ak bàyyi la ak Seydou. d'accord merci beaucoup. jërëjëf man c'est à moi de vous remercier quand même parce que romb ngeen buntu kër yu bari ñëw ci buntu fëgg buntu kër gi dugg fi lii nag mbébét la boo xamante ni yàgg na suñu waajur bu jigéen nag moo ko tàmbale woon ba ñëw mu jël suñu mu nekk suñuy loxo ci sant yàlla bu baax a baax li ngeen defal ñu nag ñun ñoo ci kontaan parce que war na ñu ngi ci liggéey bàyyi la ak Seydi te ni ñaan yàlla mu jëm kanam gën a sax kon jërë ngeen jëf man c'est à moi de vous remercier merci beaucoup jëf nuyu naa la soxna si. fay naa la. yaa ngi ci jàmm. ça va la Adama Laye. Adama Adama tey naka ngeen di dundee woote ki nga xamante ne moo de suñu maam Seydina Limamou Laye. mbégte rek mbégte bu dul jeex. balaa mu maas. appel deux ans de cela ci ginnaaw jotul am comme niñ ko daan célébrer. cette fois ci nag ñu may ñu feet célébrer ko ci fi ñu ko war a célébrer mooy ci bërëb bi daal. muy sant yàlla ak mbégte ñaan yàlla. teewe ko at yu bare bare incha allah. naka ngeen koy dundee tey ak gan yeeg organisation bi. contentement mbégte rek la mbégte bu dul jeex la en fait lii lañ am ñun laayeen amuñu lu ëpp appel muy woote Seydina Limaamu bi koy sante suñu borom di ñaan yàlla appel yi appel mbas mi ñu ko doon xañ yàlla yamale ko fi ba appel buy ñëwaat ñu mën di ko célébrer comme ainsi. voilà gis nañu laayeen yëpp mën nañoo sikar sikar nga xamante ne moo de suñu maam Seydina Limaamu est-ce que yow mën nga nga yëkkati. si man naa mais bon baat bi nag gëw ma ni moom moom ah wax dëgg neex yàlla est ce que doo ko jéggal non ma yëkkatee day day day day kii jéggal leen ma ko rek waaw kay merci beaucoup merci beaucoup Laye waaw maam nuyu naa la. fay la yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant tur bi naan la. Penda Diop. mama Penda tey woote Penda Laay mama Penda Laay tey woote. duma diine borom jàmm laay rek ma indi fii bëgg ko lool nag am sama place fa may toog di jaay teg samay rajo di ko si kër suba ngoon bàyyi laay sunu borom yàlla moo ko may may gi mu ko may nag noo ñaan yàlla mu baawaan ba ñëpp bokk ci. képp koo xam ne jullit doomu aadama nga rek yal na la ci yàlla boole ci barke borom jàmmalaay. naka ngeen di dundee ñaan liggéey moom yal na ko yàlla barkeel. Ah, ñaan bi gis nañ ne ñaari at a ngi nii amul tey ren gii mu am naka ngeen koy dundee. yàlla koy door a dogal parce que sunu borom moo yor dogal bi dogal baa ngi doog a ñëw yal na nu jik te nu defaat ko di ko def di karal ma si karu maam li maamu laay tuuti rek ma ñamal soo gaa boo ma defar baax <laughs> boo ma ñamal ku doon laaj ku ame diine yaaram ba feeru fa jaama laay bàyyi laay ame diine ngarum diine la nu fekkoon laay di ko jaamoo sëriñ si ñëw di ko diingat li baasa yaawa na yoon we bi xanaa exposé si daal li ngay mexee rek bu baax a baax nga gisee liggéey bi mu ngi dox ci appel bi wala waaw dox gi nag moom daal na gën a dox waaw ndax euh, xam naa ni euh, liñ ko gëj a def nag moo tax waaye ragal naa nag géen ne moom ragal naa ne fa lan ëpp yaakaar waaye gii moom wax dëgg yàlla for nañ fi tuuti rek waaw waaye nan daan nan nan ko daan yéege bu njëkk ak tey jii moom wute na lool. naka bi. waaw yëg-yëg diine rek ak lislaam ndax ku ni dal daal ni diine ku ni jàmmalaay daal ni diine euh, kon loolu moo waral ñun jaaykat yi ak fu ñu programme yu mel nii dañuy waaj dem fa rek ngir maanaam daan doole rek nag. waaw ah, waaw. merci beaucoup. bëgg ci yow. yéen yéen ne waa fan. ah loolu télé rajo. ah waaw kon baax na. taw feex nga ne rek am leen jàmm ñu am jàmm doole Seexul Xadiim jaajëf Fall. soxna si nuyu naa la. fay naa la. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. bi nan la Maymuna. Maymuna Maymuna tey naka ngay dundee woote bi ki nga xamante ne mooy suñu maam li maam li maamu laay ñaati ñaari at a ngi nii amul ren mu am ngeen koy feete seen yëg-yëg. waaw sant yàlla rek et puis namoon nañ ko. namoon nañ ko lool lool lool ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ñaan suñu borom mu continuer rek lu fi waaye ñaan rek suñu boroom nangu ko bu baax a baax jërëjëf. naka ngeen di dundee gérer gan yeeg bernde yeeg yooyu. waa sant ñun moom xam nga ne Yoff lañ dëkk. waa dañuy yaatal rek suñu lal yi jox gan yi ñu tëdd sant yàlla rek ñaan ñaan suñu borom. ñëpp di wuyoo laay maxtaar lan moo sabab lool. waaw sant rek borom bis bi moo wootee loolu ñëpp laay laay laay maxtaar xam ku nekk santam ñëpp laay rek la ñuy wuyoo d'accord merci beaucoup merci jërëjëf kontaan naa <laughs> booy nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla bu baax. naan la. man uh, soxna Ndeye Fatou Diop. Hmm. soxna Ndeye Fatou naka nga dundee tey appel bi. xanaa di sant yàlla di julli ci mam Baye Laye xayru xalxulaa di feddali sunu kóllëre ak sunuy sanga di ñaanal dudu ma im ki Seydina Mamadou Makhtar Laye yàlla fi yàgg te wér di ko ñaanal it bi yàlla oyof waaw te yàlla bu ko ke yàlla bu ko dara jaaxal ci ci ki xilaafaam waaw di wax ni dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci imam Baye Laye li ma waxoon alayhi salaatu wasalaam di ñaanal suñu wayjur yi ñi fi nekk yàlla neen fi yàlla bàyyi di ñaanal suñu way dawlu yi yàlla na suuf oyof seen kaw ñañ fa fekk ak ña fa fekk di wax ni mbégte rek lañu am ñu gis ne appel bi ñaari at a ngi nii amul ren gi nag yàlla dogal na am na naka ngeen ko dundee. xanaa xol bu sedd li ma la waxoon léegi di santaat yàlla di julli wat ci maam Baye Laay moom mi nga xam ne mooy sangub jamono te di wax rek ni lu jot yomb waaw lu jot yomb ndaxte soo xoolee ni tey jii tey dañ naan tey tey taalibe yëpp saaba yëpp tey jii tey namoon nañ bis bi tey. ndax tey soo gisee tey affluence bi am jàmmalaay gis nit ñi tey engouement bi ñu am préparation yi bien avant la veille ak yooyu yëpp nga xam ni nit ñi yàqamti woon nañ lii ndaxte lii mooy sunu mbégte ndaxte ñun lii mooy suuxat suñu ruu bon nag ñu sante ko yàlla bu baax a baax te naan alhamdulilahi rabbi alamin waaw merci à vous aussi jërëjëf di souhaiter ñëpp nag un très bon appel ñi nga xamee ni man maa ngi ci commission accueil ci la bokk ci organisation di ñaanal sunu président ak sunu mag yi nekk foofu yëpp di leen ñaanal yal na yàlla dëgëral seen yeen waaw loolu rek. dundee organisation bi ndax yomb na tey. c'était pas facile. di tout c'était pas facile du tout waaye nag lépp ñu sante ko yàlla parce que ku nekk da ngay ñëw ak sa yéene ak sa xew xër xam nga nit su xëree ñëpp dañuy bëgg a ñëw mais macha allah tey ni ñu organiser woo en placement bi. tey niñ ko defee nii ute nag yeneen at yi fi daan am parce que ñëpp nii lañ daan def tey ñii niñ ko féetale nii jàkkaarloo géej gi macha allah yàlla daf ñu si defal tawféex parce que dañu xool ne dañu si largeur bi lañu jël waaw jë si largeur bi lañu longueur bi lañu jël mais jëruñu largeur bi tey léegi nag loolu it encore it dimbali nañu jàppale ñu waaw kontaan na trop mais nag di sant rek xam ni nag ñun lii mooy sunu mbégte lii mooy sunu fierté ñun lii rek la ñu am di ko sant yàlla bu baax di leen ñaanal yéen yene ñan wasaare ay yàlla na leen yàlla defal jàmm li ngeen xam yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na leen koy yàlla defal te télé bi dem ba ca kanam a kanam barke maa di yokk saa jërëjëf Laye Makhtar jaajëfati merci. lu ngeen di buuxante loo nekk. ça va bien. yaa ci jàmm. waaw maa ngi bi nan la. Basine. Basine nan ma waral sa teewaay tey fii Yoff. ah xanaa ñëw si bésu maam limaamu bi rek. Mhm. ñëw ziyaare ñaan say soxla comme ñun dañoo nekk ci classe examen loolu moo tax quoi. loolu nga ñaan ah ñaan ah ñaan yàlla ma ñu xéewal feebar bi jóge fi affaire yooyu daal loolu rek la ñaan ma ñu examen bi ñuy def ñu gis ne appel bi ñaari at a ngi nii amul ren gi mu am naka ngeen ko dundee ah neex moom torop macha allah mbégte rek macha allah moom gis nañ ñëpp d'accord gis nañ ñëpp mën nañoo sikar sikaru ki nga xamante ni mooy Seydina Limamou yow bu loo ci mën a wax ah ma si mën wax moom bëri na. yaay ramu jaam ñi njiinu njiin baay maam baay laay yaay ramu jaam nga ne lan yow ah namoon nañ ko trop ci loo la Mariama Mariama tey lan nga ñu woon a wax ci woote ki nga xamante mooy suñu sëriñ suñu maam maam Seydina Limaamu Lay ah lu ma ci mën a wax moom moom bëri na waaye lii moom ko yàggoon a nag ngeen xam ne yéen da ngeen da ngeen a nekk si classe d'examen te loolu moo leen fi indi daa mel ni pour ngeen ñaan yàlla may leen ni ngeen bëgg ñoo ngi ñëwaale pour ñaanaale yàlla yàlla may yàlla ñu befem bi ñu mën koo dagg ci jàmm incha allah. waaw ah. ñu mën a sikaraat ci sikaru Seydina Maam Limaamu Laay. fa yàlla moom mu sikar moom non non. Ah, merci. barke Baay Laay Seydi wallaahi la azim bëgg leen sama xol moo ma indi ñoom fii sama xol laa ko def fii barke Baay Laay Seydi waaw. dundee appel bi tey ñaari at a ngi nii amul yàlla dogal na tey mu am. macha allah macha allah. ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim mbar ko yeggal ci alhamdulilah rabil alamina li yàlla dogal parce que ñaari at a ngi nii amul ñu namoon ko lool nag mu ñëw rek neex neex tubaar fa kàlla macha allah foo dem jàmm salaam xéewal yokkute kii nag moom man dama koo def suma fii muy Baye Seydi waaw tubaar fa kàlla macha allah euh, sama sama ñëw bi ma ñëw dama dama koo ba ñëw ko lu ma neex la lu ma neex la. sama sant mayu ma ko waruma sax samay tànk day metti wallaahi la azim mais lu ma neex la loolu lu ma neex moom moo ma indi fii dafa nekk sama xol dama koy dund dama leen ay dund ñoom billaahi wallaahi wa taalaahi ñaan yàlla nag euh, yàlla yóbbuwaat ñu déwén incha ñu amaat appel bu neex tubaar fakkaat la macha allah neex na. Ah, merci beaucoup merci beaucoup. appel bi <laughs> eh, eh, eh, taxawa ana maire bi. damaa juum damaa juum mais appel bi neex na lekk ne ba suur naan ne ma mandi mais fan laay feeñ fan laay ah, bi daal neex na maa ngi soog a ñëw appel mais dama bëgg tey dama kontaan. am di leen gërëm tamit yàlla nga fekk ay déwén déen incha allah kontaan nañ trop. waaw ñu lay jaab di lay jëral. salaamaaleykum na ngeen euh, appel bi <laughs> dafa neex ñu ngi sant yàlla di gërëm suñuy ñaari waajur bañ santee yàlla ba noppi na appel bi dafa neex waaw fii xeetu teraanga kër goo dugg am na teraanga fii dafa neex yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén yal nañu yàlla may dañuy yàlla may tawat at wér bañ fekkewaat ko déwén incha ba mën a ñëw fii ba si kanam ak kanam wax suñu xol seetlu na kontaan nañ. sëñ bi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. maa ngi jàmm ba. tur bi nan la. man Jibi laa tudd. Jibi Jibi nga ne tey loo dund fii Cambérène. non man moom ngi soog a ñëw appel nag wax dëgg yàlla. mais dañoo dugg benn kër di ñaan ndox rek gars dalal mais lekk bu façon lekk bu nekk am nañ ko. mi ngi nii suñu saag yeeg yi dafa fees dell ak ay ak lekk. non ay privé ak billaahi loolu moom nice. naka ngeen organisation bi kon jaar na yoon. non jaar na yoon. jaar na yoon gars yi buuxante wu ñoog yooyu noonu. organisation liggéey bi rafet na waaw yooyu yëpp yaa ngi a xam. fi kon xam naa doo fi xel di gëj. ni ko gars yi ñëw damaa waroon xaar reer sax mais dama fi mën a kii ndax ma dañoo wàcc rek ñëw. Ah. loolu la. waaw ñaan mooy loolu. waaw affaire yi moom neex na ba ñëwee dalal nañu waaw gars yi may nañu lépp mooy loolu te kontaan nañ yéen itam seen liggéey rafet na waaw yal na leen yàlla defaral jaam ju bari waaw ñu feke ay déwén déwén. ñu koy kontaan rek si contentement mbégte yaa am gën a xam daal mënuñu wax xam na xol moo sedd quoi. xol moo sedd wala li ngeen lekk bëri. non <laughs> bul wax loolu ñun ñun lekk tiitaluñ mais fii nu ñu dalalee xam nga. dañoo bett quoi loolu la suñu xol moo sedd kontaan tamit seen seen teewaay xam nga mënoo ngeen ñu aju xam nga romb dem mais ngeen taxaw nii posé ñu question xam nga xam nga mënoo leen si bëri fekk moo tax ñu leen si sant leen bëgg. merci beaucoup. Eh, Ijaya Kandimana